asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki eh, téléspectateurs yi mbokki internautes yi nuyu nañ leen ziar leen di leen wax ne dal leen ak jàmm ci weeru koor 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2023 fii ci Touba Mbacké mbokki xel nemmeeku gi nga xamante ni eh, Serigne Ahmadou Badawi eh, moom Cheikh Mor Fadal amal na ko ci jumaay Touba ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides mu yabal ko fi mu ñëwoon nag doon uh, nemmeeku liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la fi daayira mu xadamatul xidma di amal ci biir weeru koor gi sëriñ Ahmadou Badawi bi mu agsee ci uh, jumaa dalal nañ ko mu leeral suñu afiya lépp loo xam ne moo jëm ci liggéey bi waaye it visité mbooleem yokk yi li nga xam ne moom la ñuy waajal ci ndog yi ba ci bi nga xam ne def nañ ko ci uh, biir jumaa ji ngir mu leen di lakkal mburu ak yeneen yi nga xam ne dañ ko yittewoo ci ndog yi أحد من زن خير الله من الأرض ci daan financé par weer ci ci koor gi dafay mm. bari mm. ñu xalaat ne léegi ñu def ko fii mooy gën a jàpp ni bu boobaa dañ ko mën a yittewoo ci koor gi yeneen événement yu mel ne màggal yooyu itam danañu mën a dimbali moom mën naa lakk mburu mën naa lakk croissant ay pain beurre mën naa lakk ay petit euh, pizza yi ay neem ay fataaya <laughs> lépp lu caaju moom moom man man na ko ah. nga xam ne lépp fi lañ koy fi lañ koy waajal alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala wa ashaabihi wa xayra xadimihi wa man bi ixsaani ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati sunuy kàddu di ko tàmbalee ci ab nuyoo ak ziar jëmee ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyil na ko fi te may ko wér ba mu yéene liggéeyal sëriñ bi lépp mu mën koo liggéey ni ma ko bëggee te nu ànd ko ak moom di am mbégte mu rëy ak euh, loo xam ne xamuñu nuñ ko mën a tudde ci ñëw fii tey ci jumaa ji tedd ji nga xam ne mooy yaakaari murid yi mooy jubluwaayu murid yi fii nga xam ne fii la Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu nekk ci kanam njabootam gu tedd gi ne fi muy dëkk boo xam ne it bépp murit sa yaakaar fii la ne àdduna boo sañoon itam waxtu woo wujjee sa borom ñu indi la jébbal ko fii ci dëkk bu tedd bu sell bi sëriñ bi yabal nu ci weer wu tedd bii ñu ñëw indi ak nuyoom akuk cantam akuk ñaanam jëmee ko ci daaira muqaddamatul xidma yi nga xam ne ñoom lañ dénk lool yi ma wax mooy li gën a kawe li gën a tedd li gën a sell ci morit yi mu jumaa ji waaye muy barab bii nga xam ne fa la ku tedd ki nekk njabootam gu tedd ki ne fi waaye dénk leen itam fee nga xam ne képp ku wuy ji boromam ci murid bu sañoon ñu indi ko jébbal ko boromam fii ci kanam Cheikhul Khadim radiyallahu waaye dénk leen itam sha'air yi nga xam ne mooy di aju ci diine ji te loolu mooy ndonoy sëriñ bi tawféex ngeen am ak jagle ngeen am boo xam ne sunu borom rek moo koy jagleel ab jaamam waaye lenn mënu koo maye du tawféexi sunu borom kon alhamdulilahi rabbil alamin waaye nag muy mas masuliya bu mag a mag waaye alhamdulilahi rabbil alamin nag ngeen yanu ko di ko doxal doxalin woo xam ne kawe na njort ndax waxtu wu nekk rek ku jonjoog yéen wala mu jaxasoog yéen wala mu nemmiku liggéey bi dana am loo xam ne lu ko yéem la loo xam ne xamu ko woon benn rek ci man mii ak sëñ Muntaxa mi ma àndal ñun ñu ñëw tey xamuñu woon ne ndog yi fii lay toll xamuñu woon ne itam nag àgg na ci dayo bii loolu doon lu am solo ci lislaam ndax sëriñ bi wax na ne man nañ sax xadis la mooy ku xiif nga dugal benn ci benn tip ci biiram mën nañu wax ne yool ba ëpp na wala tool na ne ku tabax junni jàkka idxaalu luqmatin fi batnil jaa'i afdalu wala ka alfi binaay alfi jaam ka binaay alfi jaami'i kama aw kama xaal sallallahu doon loo xam ne kon lu lu am solo la waaye rawatina nag ci weeru koor gii nga xam ne mooy weeru sëriñ bi moom wax nañ ne bu daan jublu si ñëpp dañuy nemmiku ci moom mbégte ñëpp dañuy nemmiku ci moom cawartaange ñëpp dañuy nemmiku ci moom loo xam ne daal xam nañ ne weeram waa ngi ñëw mu wax ko fa ay barab yu bari wax ne weeru koor moom mooy weeram wax ne weeru koor itam ci lay ci la ci la ci la ñu wax ne njëlbeen gi yërmande la digg bi ak njëgal la mujj gi goreel ci la di ko dundal ci dëkk bi ci anam goo xam ne it ku ne xam na ne mooy weeru sëriñ bi ndax alquranul karim li nga xam ne sëriñ bee ko moom moom ci anam yëpp ni ñu koy jëfe ci Tuubaa gii rawatina jumaa ju tedd jii ñu nekk di ko fi di ko fi jàng ci guddi ak bëccëg daari kaamil ak fépp fu daari kaamil ne waaye guddi guddi koor ni ñu koy naafila fii ci kàddu sunu mbokk mu tedd moom i Serigne Fallilou Mbacké ak ña ko jiitoon ba mu yegsi ci moom ku ne xam ne loolu ak jagle la waaye loolu royaat na léegi royaat na royaat na ba àgg ci fépp foo xam ne njabootuk sëriñ baa ngi fi ba ci biir kër yi sax ñu ñëw ci jumaa jiit ña ngi koy jéem a nab bi di ko def ci seen kër kon weer wu tedd bii nit ñi di ko jooxe ngeen di ci jëf-jëf ju toll nii loolu alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi nee na xolam sedd na ci guy xam la ne ne nam ko daan defe noonu la ko yéenee defe te xam nañ ne defe na ko ni ndax moom bu xalaatee rek sunu borom mottali xalaatam bu yéenee sunu borom mottali yéeneem kon xolam ak xelam ak yëpp mi ngi fii ci jumaa ji tey ci taxaw taxaw ci taxawaay bii di ko def na mu ko daan defee ñu koy ñaanal sunu borom bàyyi ko fi tam may ko wér te dolli ko kattan dolli ko kattan ndax ak nekkam fi day dal na mu xel ku ne xam ne fii mu toll di julli si jumaa di ànd ak ñun di julli loola bind la boo xam ne inna fi daalika la ibra laalakum tatafakkaruun laalakum taaqaluun yaa ulil albaab loolu mënees na ko jàng ci jataay bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha dana ko ñëw ci àjjuma ji ak macha allah fi mu toll. waaye mën nañ cee dégge itam afala akoonu abdan shakura lu mu am lislaam la kon lu mu yëkkati lislaam rek waaye lu mu jàngale ci lislaam doyul waaye gis ngeen tàkkusaan gi itam ni mu koy defee fii ci kër gu mag gi ñëw toog ñu jàng xasida yu tedd yi xasida bi nga xam ne boo koy déglu doo bëgg mu noppi te lépp ngi ci biir kon daal sëriñ bi nee na xolom xolom sedd na nee na xelam dal na it la ko wax xelam dal na rëtéex ci doxin wii nga xam ne moom la liggéeyam sëriñ bi di doxe kon nag ñu ñaanal ko mu yàgg fi te wér waaye nu fàttaliku la mu waxoon ne bu mu laal suuf bu mu laal suufam joojee yéen de tawu ngeen waaye nag nañ gën a taw bu baax a baax na kenn ku nekk jàpp ci ku ci noonu itam jàpp ne loxoom mënu caa ñàkk bu ñu yëkkatee sunu loxo nag sëriñ bay gàttandoog taw fee xam waaye lii moom kawe na nga njort tuyaaba ji ci nekkit yàlla rek xam nu mu toll ak borom liggéey bi nga xam ne moom ngeen koy defal waaye ku fi ñëw da yéemu da nga dolli ko waat pas-pas da nga jaajuwaat it ngir ñëm ko ànd ak yéen kon daal liggéey la boo xam ne képp koo xam ne doon nga ci tàbbal sa loxo na ko yokk boo ko mënee bàyyi bu ko kenn tàbbali di ko bàyyi moom képp koo xam ne it xëy na sa jëf daawu ci dugg si na nga fexe ba mu ciy ñëw jëf ju nangu juñ nangu la ba noppi rawatina fii ñu koy defee rawatina waxtu bii nu koy defee rawatina nii nu koy defee jar na sax nit ñëw ndogu si fi ànd ak yéen ngir tëbb ci barke boobu waaye ngir yokk leen ci tuyaaba ji ak soññi leen ci jëf ju rafet ji ngeen koy def kon sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax waaw leen góor di leen wax waaw leen góor ndax moom nee jàmbaar des koy kañ baatu kañ boobu ci moom lañ ko déggee nee jàmbaa jàmbaar des koy kañ kon lii ngeen di def liggéey bu am solo la ñu ngi leen di kañ ci turu sëriñ bi di leen sant ci turam di leen gërëm di leen ñaanal di leen wax rek ilal amaam incha allah ñaan sëriñ bi gën ñoo gàttandu ak i taw fee xam gën a yokk kàttan gi ba lépp àgg ni ñu ko bëgg a àggee asalaamaaleykum wa rahmatulah